lii nekkul leen di gën a renforcer ñoom gën a suuxal ñun suñu entreprise yi ndax monsieur le ministre bul fàtte nii dañoo nekk si réew moo xam ni lu nekk am na fi nee naa la keroog turquien yi li ñu yor si koom-koomu réew mi tey daanaka mën na 80 pour cent ci loo xam ne seen loxo la ko teg stade bees bi ñoo ko yore Ferre Falémé bi ñoo ko yore centre Abdou Diouf ñoo ko yore aéroport ñoo ko yore ah centre Arena ñoo ko yore arène national ñoo ko yore mais daanaka ñun ñep mom lañ jox xaalisu réew mi légui isa imaginal tay est-ce que lii dañ ko indi ba paré dogo signanté ñom ay accord yu bess lolu bëgg na ci ay lér aussi tamit ñaarël bi moy monsieur le ministre li est-ce que du gëna yombal li nga xamanteni tay tey bokk na ci évasion fiscale yi ñuy wax ndax ku ne xamna na Luxembourg am ay accord yu signanté won ak ñom tay amna na xaalis bare bare yoo xamante Sénégal yi nekk fi ay hommes d'affaires ak politiciens jël seen xaar yóbbu ko Luxembourg kenn mënu ci jot boo demee tey Île Maurice li nga xamante ni moom la amee gus néew muy avion yéen am sax domicile ko au niveau du Sénégal fu ko domicile foo xamante ni kenn xamul fu mu doon est-ce que yooyu yëpp maanaam nañu xool di càmbar li ñuy def lu mu doon avant ñu koy def. ñun amuñu problème de fond amuñu problème suñu génération dañ am lu dañu bokk ci réew mi juddoo ci réew mi màggee ci réew mi jàngee ci réew mi. Nous sommes dans une gérontocratie parce que fii boo fi waxee génn dañ la yow sunu doom nga attends Macky Sall doomu nit la doom mais moo jiite réew mi le problème c'est pas Malick sunu doom nga non attends le problème c'est de débat bi ñu war wax pour maanaam joxe une idée pour que Sénégal maanaam jóge fi mu jógee progresser loolu mooy débat bi moo tax ñu ñun dafa type d'emploi. ni nañ ni war nañ ko entreprise yi comme di Sénégal Turquie mais bi c'était à 10 5 sur l'imposition des dividendes qui sont transférés moi j'ai dit que nañ ko ku fi bëgg 25 c'est l'intérêt du Sénégal ça c'est un débat patriotique c'est un débat pour les Sénégalais pour augmenter le bien-être des Sénégalais donc ñun